jaajëfal di leen sant di leen gërëm vraiment yàlla yokk jàmm suñu réew mi di nuyu aussi ñi nekk bitim réew moodu moodu yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu suñu mbokki baykat yi suñu mbokki sàmmkat yi nappkat yi ñëpp rek ñu ngi nuyu àdduna ñu ngi nuyu Europe Asie Moyen-Orient ñu ngi nuyu Afrique mais di beral nag Sénégal nuyoo ndax tamit nit amul lu dul réewam te Sénégal mooy suñu réew ñu war a ñaan yàlla jàmm sax fi dàkk waaye nag jàmm ji comme ni ko sama waay ji di faral di waxee réew munta am mukk dëgg te jàmm lalu ko kon ñu ngi ñaan yàlla na fi jàmm yàgg ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di nuyu mboolem kuy suivre GCB di leen wax ni leen ngeen gën di wéy di abonné ci site bi ndax site bu am solo la di ko vi di di aimer tey partager comme ni ko suñu waa ji waxee di fi di ko forcer ci groupe yi ñu ngi leen di nuyu baax a baax di leen jaajëfal tey nag ñu bëgg a indi ñaari point yoo xam ne yu am solo lay doon yu nu yaakaar ni dina am solo ci askan wi ñaar yëpp nekk actualité bi ci njëkk mooy kii di Mamadou Ibra Kane di journaliste boo xam ne ni yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ko ci Sénégal Mamadou am wax ju mu am wax def benn chronique boo xam ne nii nit ñi dégg nii wuute na ci ñi dégg nañ jëm nit ñi dégg jëm na leen Euh, tey daan indi lool ci penc mi waxtaane ko incha allah wax ci sunu kemtalaay xam-xam ak ki nga xam ni mooy Serigne Abdoulahat euh, Gaynde Fatma lu noonu la Serigne Abdoulahat Gaynde faat Fatma moom tamit am na benn révélation bu mu def maanaam génn def benn révélation bu am solo ak wax yu mu wax euh, ay xaalis bu état dugal Touba loolu tamit daan ci dikk incha allah muy waxtaan woo xam ne nii ñuy ñaan ñëpp teewlu rek lu ñuy gën di wéy rek waxtaan bi gën a neex Euh, waaye nag lu jiitu ñuy dugg ci waxtaan bi damay souhaiter joyeux anniversaire sama doom maa fii Khady day fay célébrer anniversaire am le treize avril dama koy anticiper di ko souhaiter joyeux anniversaire di la wax ni la cadeau bi mu ngi ñëw nga gën a góorgóorlu incha allah Assane. maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar. maa ngi lay fay bu baax a baax. gëj naa laa dégg de. maa ngi fi de maa ngi si jàmm baax. temps yii woon. waaw maa ngi waaw Assane li ma fi wax ni yépp ci introduction bi muy Mamadou Ibra Kane euh, sortie bi mu def ni chronique bu am solo boobu mu def mm. te nit ñi wuute ci ay xalaat mm. ak ki nga xam ne mooy Serigne Abdoul Ahad Gaynde ma moom tamit aussi révélation bi mu def noonu mm. wax ni Touba Macky Sall dugal na fa plus de quatre-vingts millions yoo xam ne mu nga fa ku xool gis ku làmbu daj euh, su ma la doon wax tey gannaaw ba nga nuyoo ba pare lan ngay wax ci loolu waaw xanaa sant yàlla bu baax mm-hmm. sant suñu ñaari waajur mm-hmm. sant Serigne Touba di sant sunu mag ñëpp. di gërëm Sénégal la yi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel. di wax nañ gën a abonné bu baax te xam ne seen mbégte mooy sunu yitte. di nuyu waa bitim réew bu baax a baax te di leen ndokkeel si ànd bi nga xamante ni ñu ngi koy ànd ak ñun. di ñaan lañ fay wuti di eh, addiya ak njël. yal na leen ko yàlla yombal. di nuyu soxna bu Diop mi nekk si xarale bi di nuyu mbooleem koo xamante ni yàlla dogal na yaa ngi ñuy seetaan. di nuyu it waa Touba gi nga xamante ni fa laa dëkk fa laa bokk. rawatina waa Saam. di soññaat euh, gouvernement bi mu jàppale ñu comme ni mu jàppalee yeneen nit nañ si dikk. Mhm. mu jàppale ñu si aw yoon. Mhm. di siyaare bu baax it euh, sunu kilifa euh, sunu sunu mag sunu lépp di Serigne Gana Messere. Mhm. waa juróom bu baax boobu nga xamante ni bàyyi koo na fi. daal bu baax a baax a baax. di ñaan yàlla àtte ko si yërmandeem yàlla may ko xolub muñ moog ay rakkam yëpp mahmadan mesere argentine ak ki nga xamante ni mooy maam Thierno argentine seen Modou Maxtaan mesere ñëpp mm. famille mesere bépp daal mm. ñu ngi leen di jaal bu baax a baax te di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Assane ginnaaw loolu sëñ Gana Mesere moom it ñu ngi koy ñu ngi koy jaal waay juróom woowu waaye yow lañ koy jaal sax ndax yaa ñu mm. a jige te ku na ni Assane Mesere Gana Mesere ay parents lañu ñu ngi ñaan yàlla yàlla jéggal waay juróom woowu ndax Gana Messere vraiment marqué na tuusam moom it ci Sénégal mm-hmm. ndax mu ngi waxtaane ci tarixa murit mm-hmm. di bégal murit yi di bégal jullit ñi kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na may ko xolu muñ mm-hmm. te yërëm waay juróom woowu mais Assane ginnaaw loolu Mamadou Ibra Kane journaliste bi nekk ITV dafa gën def benn révélation bu doy waar nit ñi nag interprété ko nu nekk euh, du def ni attends xaaral sax bala ñuy sori ci waxtaan bi bu ko defee ma tegal leen waxu Mamadou Ibra Kane Hmm? gars yi déglu parce que c' est très important ndax Sénégal Assane loo fi wax dañ ci war a indi firnde. Hmm. te Mamour dafa waxe version française la waxe gars yi traduire ko olof mais dafa mel ni ñi bëgg a dégg leneen ñoom leneen la ñuy dégg mais Mamadou yaakaar naa ne il a été clair léegi mbokk yi xaaral ma tegal leen waxu Mamadou Ibra Kane ngeen dégg ko bu ko defee ñu jëw dellu ci plateau bi incha allah. a osé, dans l'entourage du sage de Touba, organiser l'audience troublante à laquelle ont eu droit Clédor Sen et Hassan Diouf. Avouons que ces deux talibés ne sont pas communs et ils sont loin d'être commodes. Quelque chose de grave a dû se passer dans la cour du respecté et respectable calife général des Mourides qu'on est bien curieux de savoir. Le pardon peut être accordé à tout fautif, quel que soit le délit ou le crime, surtout quand il fait amende honorable, tout en Wolof. Mais Hassan Diouf et Clédor Sen Est-il l'audience qui leur a été accordée à jëf mbokk yi kàddu yi mu ngi noonu muy kàddu Mamadou Ibra Kane li mu wax ci liñ dégg yaakaar naa ñi dégg français nag mën nañ ko mën nañ ko traduire comme ni mu ko waxe xaw ma nag ku bëgg dégg leneen mais Mamadou dafa wax ni kan moo osé ci ñi wër sëñ Muntaxa ba organise li nga xam ne mooy visite bi euh, Clédor seen demoon ak Assane Diouf mais waxul sëñ Muntaxa pour mu leer ndax dégg naa ni ñi di commencé wax naan Mamadou Ibra Kane dafa attaqué sëñ Muntaxa wala dafa attaqué Touba non attaqué wul Touba attaqué wul sëñ Muntaxa. la xalif mooy lan. xalif général mooy mooy xalif bi mooy sëñ Muntaxa. ah comment di nga tudd sëñ Muntaxa. non tudd maanaam attaqué wu ko attaqué wu ko comprendre nga daf ni kan moo osé ci entourage su sëñ Muntaxa maanaam bëkk néegi comme ni ñu ko mën a waxe ci olof. kan moo ci am sañ-sañu jël Assane Diouf ak Clédor Sène di leen yóbbu ci sëñ mun taxaa benn dinañ ci dinañ ko toj beneen bi ci des mooy euh, wax na ni xalifa bi nañu ñaan jàmm te tuub te te te te bàyyi yëf yi mu dal mais nag dafa am dossier yoo xam ne kenn mënu ko bàyyi mu dal te effectivement sëñ taxaa waxul ni dossier yi nga xam ne dafa tege sur la table bu ko kenn jugé waxul loolu de mais daf di sànnante xeer yeeg tojante beek waxante wax yu ñaaw yeeg yàqante beeg rayante bi nañ ko bàyyi te bàyyi justice def liggéeyam ci tënk loolu la mu Mountakha wax mais waxul ni bu kenn jugé benn dossier Mamadou lool la wax Mamadou Ibra Kane il a été clair ku bëgg interpréter neneen nag bu la neexee nga interpréter neneen mais li mu wax lu leer la te nag man Assane damaa d'accord ak Mamadou ci benn point xëy na am na point boo xam dama ko koy bàyyee mais am na point boo xam dama fa d'accord ak moom cent pour cent mooy. sëñ Muntaxa euh, ëmmat yi fi amoon yëpp dafa am ba li fi ñu bëri dee ñu yàq ci ay osan yàq ci ay yu kenn xamul loolu lépp am fi muy lu naqar réew mi yëpp ñëpp ko naq même ñu ko doon yàq sax wa wajir wala batiku nañu am ci aw naqar ndax nag kenn du yàq sa alal sëñ Muntaxa génn def discours bu am solo yàlla na fi yàgg te wér boo xam ne nii bi mu ko defee ñëpp ñoo apprécier que mooy nañu ànd ak dal ndax réew mi ñoo ko moom képp ku fi gaañ sa moroom yaa koy faji ku fi rey sa moroom yaa koy jaale ji kon nañu ànd ak dal maanaam wax réew mi na dal wëlbati ku génne une cinquante de millions teg ko sur la table ni nañ ko dimbalee victimes yi mais nañu wut jàmm Clédor Sène bi ñu ko tëjee ci asu kaso bi mu génnee lu mu wax buggul jàmm mais kon waruñu ko yóbbu sëñ Muntaxa Clédor bi mu génnee dañu moom buggul jàmm mais sëñ Muntaxa mii kilifa nga xam ne tey képp kuy sénégalais bëgg nga mu yilif la wala boog ñu bari moo leen yilif mu génne ni nañ leen yóbbu sëñ Muntaxa dañ leen fa yóbbu sëñ Muntaxa ku fay dem mun la fa yóbbul doo fa dem mënoo tay tay jii li ngay dëkk dëkk Touba li ngay doon doon murit boo demoon taxaw buntu kër sëñ Muntaxa te amoo protocole bu la yóbbu sëñ Muntaxa damaa yaakaar won la waaye du yóbbu quoi xam nga yóbbu mooy ñëw ma jël la fii yóbbu la mais won non bul compliqué bul ah, compliqué bul compliqué l'affaire bi yóbbu loolu waxi olof la rek hmm. comprendre nga dañ leen faa yóbbu hmm. muy euh, door ak euh, Assane Diouf hmm. Assane juuf sax mën naa ne man peut-être du ma ci mën a avancer ndax moom bi mu génnee def benn déclaration bu violent dañ ko tëj mu génn dem sëñ Muntaxa ni ko man day kàddu ya ma daan yëkkati bu dee egsi na ci yow maa ngi lay jéggulu ci yëgsi gi mu yëgsi ci yow kooku digganteem ak sëriñam la mais Clédor moom Clédor seen moom kenn wuru ko woon yóbbu ci sëñ taxa man je suis pas d'accord sëñ taxa am na am na groupement yoo xam ni tey dañ fa bëgg dem pour gis ko ñoo xam ni njariñu réew mi moo leen tax a jóg wala dañuy faj ay nit wala mu nekk. yow kay ma si Mamadou bi rek. waaw moom ci laay nekk nii. Hmm. Mamadou Ibra Kane Mamadou Ibra ngay yem nga wax kàddu bi bu wax sama xalaat ñu dem ci leneen kàddu yi ci laa nekk nii ba léegi Assane non par rapport ak ñi fa bëgg a ñëwaat waaw dégg écoutez dama lay leeral mm. dama ni entourage u sëñ Muntaxa moom la Mamadou Ibra Kane attaqué mais attaqué wul sëñ Muntaxa pour mu leer loolu leer na voilà loolu leer na te entourage u euh, bi ñi ñuy jël di leen fa yóbbu nañ leen xoolaat bu baax Clédor door seen wutiwul dara ci sëñ Muntaxa parce que dafa lancé défi sëñ la noppi nga. pare non noppi nga boo dee wax rek waxal. waaw di sant yàlla bu baax it eh, dikkaat si kàddu yooyu nga xamante ni eh, mujje nga ko sax si laay yi nga mujjee ci laay njëkkee si sëriñ eh, Serigne Mountakha war nañ faa yóbbu kii ak waruñu faa yóbbu kii <coughs> Serigne Mountakha gis naa mu dalal sama mbokk muy sëriñ Gana Messere bi mu jógee TFM ndokkeel ko gis naa mu dalal Wally Seck jël ab otoom Wally Seck yóbbu fa addi ab otoom. ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax gis naa Akon di fa dem. Akon hmm. mi nga xam mi ngi nekk Amérique artiste boobu nga xamante ni macha allah mi nga wayal nit ñi di leen béggal léeg-léeg mu summeeku def mu neen léeg-léeg nangam ak nangam gis naa mu dem fa. Hmm. gis naa ñu bëree bëree di fa dem. Hmm. gis naa son bu jóg mi dem fa. ku ne dafay dem kon sëriñ Serigne Mountakha muy Serigne Touba si kaw suuf. lu waay bon bon bon bon bon lu waay yées yées yées yées. lu waay xamadi xamadi xamadi war ngaa mën a gis sëriñ mu dox Muntaxa Mbàkke mu ñaanal la wala nga jàkkaarloog moom. Mm-hmm. pour am loo mën a jëlee ci moom. ndax fu waay fu waay mën a yàqoo. bi ngay def may ma ñëw rek li wax moo tax. non non non écoutez non c'est-à-dire dama bëgg nga wax ni la ak nu mu a mel mm-hmm. même nu mu mën a mel si àddina rek war naa mën a dem sëriñ Muntaxa gisee ak moom waxuma nag dafa mel benn melokaan bu baaxul de na kon lu tax wërta mën a gis sëriñ Muntaxa parce que sëriñ Muntaxa dafa ma foog mu ko waxee déedéet déedéet waaw non yow kay laaj ma rek non non posé ko waxee waaw kay waay sëñ Mountakha dafa génn def déclaration hmm. ni Sénégal na dal stable la laaj hmm. bàyyi justice bi def liggéeyam hmm. jël cinquante millions dimbalee ko victime yi fekk booba Clédor Sène mu ngi ci kaso bi Clédor seen bi mu génnee lu mu wax wutuma jàmm voilà sëñ Muntaxa ni jàmm la bëgg mu ni wutuma jàmm est-ce que dégg na ne sëñ Muntaxa moo ko gën a dégg Clédor da nga ni dafa génn si kase moo la gën a informé wu xam naa defal ndànk Clédor moo la gën a informé wu waaw ma ñëw non non dañuy waxtaan xam nga ki nga xam ne dafa génn si ab kaso taxaw ci bunt bi ñu laaj ko mu ni man de bëgguma jàmm dem toog këram xam kan moo yor jàmm ji wala kan moo dox jàmm ji ba mu génn moom ba ba mu xam ne sëñ taxaa moo tax mu génn mu dem ndokkili sëriñ Muntaxa kooku bëgg na lu baax ndokkili sëñ Muntaxa tax koo jóg de la ko tax a jóg lépp am na ca. lu lu ko tax a jóg léegi dem si Muntaxa am na fa. tax koo la ko tax a jóg lépp ba mu demee am na fa. kon ñi ngi rafetlu dem gi nga xamante ni dem nañ ko Serigne Muntaxa mais ñi ngi rafetloo teeru bi Serigne bi teeru leen ndax ñëpp ak njabootam lañ ndax Serigne Touba ni mu wut ay murit ak ay tijaan la woo. non bu dugg ci détail boobu. man Clé d'Or laa la wax bu ma dugal Clé d'Or man xaw ma lu mu doon ah. yooyu taxumaa jóg. dama lay leeral ni Clé d'Or laa ni danga war a dem Serigne Mountakha ndax. Clédor ba muy dem Serigne Muntaxa man mii di wax yow man njort naa ne Clédor sax moo ma gën. non te man war na maa war a dem sëñ Mountakha xoolal a dem sëñ ak kii a man maa lay a fa war a dem rek a defaru waaye ku defaroo ci moom ki yàqoo ci moom lañ war a wax xam nga yow kon bëgg da bëgg di toog ak moom da bëgg a doon war ngaa mën a dem ci waaw écoutez saafonte wax ni non non déglu ma yaa ngi jël sama temps ma ñëw man dañuy wax déglu ma xaaral ma jox la parole non non non man maa yor kàddu gi damay wax dégg ma xaaral ma jox la parole wax ni amul njariñ amul njariñ si yow amul njariñ man xam nga man waxumaa yow Clédor laa la man askan wi waxal wax nga si Clédor man Clédor pare naa ci waaw si waxal kii nga xamante ni mooy Mamadou Ibra Kane mm-hmm. nee nañ journaliste professionnel la uh-huh. bu fekkee ne yow nee nga si professionnel nga mhm. te boo waxee professionnel yi ni la waxoo fi dara mhm. boo waxee doomu daara yi ni la waxoo fi dara mhm. kon sa professionnel lan lay jël ak sa njàng Mamadou c'est la première fois c'est la fois mu wax ay nit ñëw di ko contexte te contexte bi bi mu waxee la parce daa fekk réew mi jaxasoo xaaj ñaari parti ah, opposition jëm nii pouvoir jëm nii mu wax xalaatam ñi wax ay waxam ñi mu arrangé wul ñoom ñoo ko traduire noonu man gis dégg naa ci ñu bëri te traduction yi sax dafa wuute dégg naa ci lu mat cinq personnes yoo xam ni kii day traduire jëm nii bu ne ngeen jàngiwul tubaab da ngeen dem jàngi ba dégg français Mamadou il a été clair li mu wax attaqué wul sëñ Muntaxa attaqué wul Touba attaqué wul keneen Assane Diouf la attaqué ak Clédor Sène ak entourage sëñ Muntaxa te entourage sëñ Muntaxa mais li ci Mamadou wax dëgg la des fois da ngay da ngay bëgg a gis bi yow mu tëla ticc am problème mu gis sëriñ bi yow en tant que murid ñu dem indi ko wan ko sëñ bi am na am na ñoo xam dañuy organiser fii ay ay ay ay ay ay groupe sociale wala ñu organiser yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ni maanaam day jariñ réew mi wala ñuy jariñ doom maanaam askan wi pour dem gis sëñ mun Muntaxa daf leen di poser problème te entourage bi ñoo la koy xañ li ma wax nii lu clair la te maa ngi lancé défi ñëpp ku ko mën a dindi nag sëriñ si nañu ràññee ent maanaam entourage bi laa bëgg wax entourage bu sëriñ si nañu ràññee ñi nga xam ne nii ñooy gàmm ak ñi raas déem am na ñoo xam ne yitte askan wi yëkkatiwu leen seen yittey bopp moo leen yëkkati ak seen bësu bopp am na ñoo xam ne yittey askan wi leen yëkkati parce que ki nga xam dafa am malade jële malade bi fii lagar-lagar yi wuti sëñ Muntaxa ñaar la fa yaakaar sëñ Muntaxa ñaanal ko wala boog mu yëkkati ci addi maanaam lu mu ko dimbalee dimbali ko mais am na ñoo xam ne nii dañuy ñëw pour ñu gis sëñ Muntaxa problème la man li may wax ne dama ci am preuve preuve yi palpable laa ci am léegi nag ñu gàddoo fi Assane Diouf ak ak kan ak euh, Clédor Sène ni ay activiste lañ Assane Diouf ak Clédor lan lañ jar réew mi lan lañ fi représenté rien représenté wuñ fi dara Clédor wëlbatiku sëñ Muntaxa wax woote jàmm jël une cinquantaine de millions dimbalee ko victime yi mu génn ne buggul jàmm ba pare ñu ko yóbbu sëñ Muntaxa te am ñu taxaw war a gis sëñ Muntaxa mënuñu ko gis entourage sëñ Muntaxa ñoom la Mamadou Ibra Kane di waxal te ñoom man je suis parfaitement d'accord avec Mamadou allez-y xam nga jàpp lii c'est baaxul te yaa ngi diaboliser non waxal say wax rek man diaboliser ma kenn li ma wax nii dama ko gëm te dama ko moom ko teggi si kaw suuf fii si da nga teggi wax Serigne Mountakha loolu da nañ wut jàmm mu ni bugul jàmm kon kay teggi na ko non teggiwu ko de keneen ba mu jógee Serigne Mountakha ba mu demee Serigne Mountakha wax mu dégg ba léegi kàddoom benn la li muy wax ñëpp dégg dégg nañ ko ñu koy jëfe kon nag la doon moo wax li yow baaj da nga may diglu. allez-y non boo waxul lu am damal naan li nga wax amul. Clédor waxul loolu. waxuma la Clédor da ko wax de dama ne la. Clédor am ci li mu def. man son yi moom def nañ fi émission. ban intérêt nga teggi wax Mamadou Ibra Kane ji kon man lijjantiwuma ay lijjanti. fii bu ma fi toogee bu dee dëgg ngay lijjanti nag Mamadou Ibra Kane li mu wax mooy dëgg. waaw Mamadou Ibra man xam ma lu mu wax non man kay traduiral naa la ko. waaw li nga li nga traduire mooy yow ma wax ci li ma si xam. allez-y waaw léegi waxal ci waxu Mamadou wax ci ma si xam. waxal léegi waxal ci waxu mais naa si wax. mais wax li nga wax ni a njuumte si Clédor teggiwul wax. kii ko da koo teggi si terrain da koo teggi. non non teggiwul waxi si. da wax nii. da koo teggi da koo teggi. da koo yow laay déglu allez mais da koo teggi. da koo teggi kilifa bu sëñ mu toll ni sëñ Muntaxa nga xam ni Sénégal bi Covid bi duggee fii li mu yëkkati xaalis bi mu yëkkati gis nañu ko di dimbali ay nit toujours nga dégg sëñ Muntaxa lu am mu génn ak magge gi mu mage âge bi mu am waaye teewul day génn di wax waxaale nag turu xalifa yëpp ñu leen di ñaanal ñu yàgg fi te wér sëñ Muntaxa génn woote jàmm jël ci poosam de euh, xaalis bu takku koppar yu takku teg ci table ñi nañu woote jàmm ki la di ko yóbbu li mu wax dëgg la te et puis dossiers yi bu ci kenn teg conco Macky Sall yow mi naan président Macky Sall yow mi naan damay teg ci ay dossiers conco mbooleem dossier bu fi jaar buñ ci teg conc nañu àtte yépp bu dee ki def ku mënti doon ku mën a def ni ñu teg ci yoon réew mi dafa war a am yoon allez-y. baax na baax na leer na. leer na ah. ba léegi kon ma kon ne Mamadou Ibra Kane ma ni li mu wax lu leer laa la wax ni moom la wax attaqué wul Touba attaqué wul sëñ Mountakha te attention nag Touba xam naa ni Assane mu ngi ci ñëw léegi ak euh, euh, waxu sëñ euh, kii Gaynde Fatma boobu sëñ xaw ma naka la tudde Gaynde Fatma

non boo ma joxee para bu ma waxee nga ne ma nga ne nga dagg ma. yow li ngay xamoo ci dara. Mamadou Ibra Kane mi ngay attaqué. di défendre Clédor Sène digganteeg yàlla dégg nga ma attaqué fi Mamadou Ibra Kane. pourquoi nga ne Mamadou Ibra Kane saa yu waxee saa yu waxee borom xam-xam yi te nee nga journaliste borom de. may déglu. waaw maa ngi lay déglu. da nga may déglu mhm. dafa jàng métier am. Mhm. toog di def di waxtaan. Mhm. ma yaakaar ne ab journaliste wala animateur. ab journaliste wala animateur. ma hmm. jàngalaale ñi nga xamante ni dañuy animer débat. Hmm. bu toog bu fekkee da toog di présenter débat. Hmm. wala nga toog en tant que journaliste nga dalal nit. amatoo droit wax sa xalaat. ndax yaa may dégg damay dégg ñaa Mamadou Ibra xalaatam la wax déedéet journaliste yi boo xamante ni yaa ngi toog di def di waxtaan ak askan wi ñu lay dégg. nga xam ñi nga ñi nga dalal. su boobaa ñi nga dalal. man nga leen a question ñoom ñu wax seen xalaat mais yow amoo droit wax sa xalaat dégg nga nit képp koo xamante ni jël nga say responsabilité ba toog di waxtaan ak askan ñu lay dégg xam nga war a wax dëgg war a wax lu ñuy teg baaraam nga war a wax. kon Mamadou li ma wax xam-xam. da nga may diglu ma wax damay laaj rek. waaw da nga may diglu damaa ngi nettali. allez-y bu fekkee da ngaa di di présenté. Mm-hmm. toog di wax ak mm-hmm. askan ñu lay dégg war wax sa xalaat. yow li nga wax ni foofu wax sa xalaat day jeex non man li may wax lépp lu ma leen wax. borom xam-xam yi laay waxal man du ma waxuma. non wax nii mais wax loolu amul sens. man dama lay dimbali da ngay wax ñi amul xam-xam. waaw li ma la wax nii tey. da nga ci jàngee léegi nag waaw léegi nag dama wax fi nga ko teg. xam nga tey ji boo toogatee fii nañ wax ci Mamadou temps bi laay bañ mu dem temps bi ñu may bëriwul technicien may bëriwul temps bi laay bañ ñu dem bul wax ci man man man man man man maa intéressant bi Mamadou Ibra Kane wax ji mu wax ci Clédor seen ak Assane Diouf nit ñi interprété ko nu mu leen neexee loolu la ñuy wax boo ci amee xalaat nga wax ci boo ci amul xalaat nga noppi ñu jàll ci leneen. waaw nañ jàll ci leneen. kon ayoo kon Mamadou Ibra Kane lañ ubbi woon boobu di leen wax waxu Mamadou Ibra Kane bi encore une fois extrait bi ma jot a am dégguma fenn fu mu attaque xalif général dégguma fenn fu mu attaque Touba. dani entourage u xalifa bi kan moo ci osé ba organiser dem gi Assane Diouf demoon ci euh, sëñ bi ak Clédor Sène dossier yi sëñ bi wax na ci waaye dossier yi lépp a war a leer loolu moom yaakaar naa ni Sénégal ñëpp ci bokku dëppoo Sénégal nag problème bi nu am mooy nit bu waxee xalaatam da nga gis ñu jug diaboliser ko mais man Mamadou dama ànd moom à cent pour cent beneen bi ci des mooy euh, Serigne euh, Abdoulaye Gaynde Fatma dafa génn def révélation waaw kooku il faut nga bàyyi bañ teg ku ñu waxti waaw moom laa damay presse damay wax gars yi Serigne Abdoulaye Gaynde Fatma dafa génn benn révélation bu am solo que mooy financement yu état def Touba